alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima sillaali ilal jannati baaxin tawassaat wa kulli wa ma li zaana xaamin musassisu mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak seen mbokkum taaliba cheikh njaay gànna sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu mas nay julli ji fekk maam cheikh ibrahima fall radiyallahu taala anhu summeku ba set taxaw ci yoon wi muy jaar bi sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahoo yemee ci moom ne ko lii ana loo ci jublu mu ne ko mbakke yow loo xool mu barkeel ma bëgg nga xool sama lépp wér na maam cheikh ibrahima fall radiyallahu taala ay jëfinam ca jamono ya muy door ànd ak sëriñ bi yéeme woon na lool loolu moo waraloon ñu bari daa ko coow di ko tudde ab dof yu mel ni itam ak li ñuy wax cataab bi sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu ame woon te mu muucu woon deret yi ngir xër ci wérug sëriñ bi mën naa bokk ca yooya waaye lu mën di xew war nañoo xam ne maam cheikh ibrahima fall radiyallahu taala anhu la mu doon def xam na ko lool wallahu a'lam sëriñ bi de sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal